boroom yàlla nga xam ne moo ñu may euh, jotaay bu tedd bi ne jotaay bu valeur bi ne di ko bàkk di julli ci sangu-sangu yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam di jiital ci nuyoo bi suñu bàyyi yu baax yi ne nga xam ne ñoo ñu dalal ci dëkk bi bidaayatan minal imaam yi di ko siyaara bu baax ak képp koo xam ne yaa ngi koy jàppale ci liggéeyu diine bi di jéggalu tamit sama baay sama sëriñ di xaaj Bachir Ngom nekk modèle ci diine ak ci jikko yàlla xam na ne bi ma ñëwee fekk ko fi dafa xaw a damm sama moral ndax fi ma bëgg a jaar yaa baariyal xaw si bariyan lay sa yuxsinuha loolu la wax Mawlaaji Maalik wax laa tufsidanha fa aatil xaw sa baariha moom mooy. wantal baari yi chère wal baari yi. wantal baari yi nas naa minal baari kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara moom moo ñu yor ci daayira daara ji dañuy jàngal ba léegi di ñu defar di ñu former ci ndigalu bàyyi sëñ bi am bu ma ko fi fekkee rek damay bég bu baax sama xol day dundaat ndax moom jëpp mi maam alxaaji rawaan la ci kaw suuf loolu nag nit ñi duñu ko xam tànk demuñu gëstu ci kan mooy maam alxaaji rawaan dama ci waxtaan daaw ji ci jaarale benn waay bu jógee Espagne waaye dama yow xanaa yow sa papa ak maam alaaji rawaana doon mën na ko dee mag ñoo mel noonu dañoo baax ba seen mbaax yàlla na koo soppi def ko ci jaww ji bu la yëttee la rek yàlla jox la ci loo xam ñu ngi koy nuyu bu di ko siyaara di nuyu tamit sama ñaari soppe sama ñaari sëriñ di ci jiital sëñ Ahmed Saam mi di sëtu Cheikh Seydi Hadji Malick di suñu mbokk di suñu xarit waaye di suñuy sëriñ di borom xam-xam bu mag di ci teg suñuy soppe suñu lépp di alaaji Ousmane Ndiaye moom it di sëtu Cheikh Seydil Hadji Malick Sy nekk al alimul allaama bu baax ko ziyaara waaye di beneen bi di jël nuyoo boobu ak ziyaara boobu di ko teg ci fadilatu Cheikh Aboubacar Sy Ndiaye al maaruuf bi Khalifa Ndiaye mu yóbbaale ñoom Matagan alaaji Mansour ñépp rek ñoom maag ñoom sama ànd ak ñoom tey yàgg na maa ngi leen di nuyu bu baax waaye xaj Bachir ñii ñu jar a damay wax ne daayira yëpp ñu royoon ci ñii eh, mag ñi bu ñu tëddee nelaw seen liggéey rafet na lool xalif ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaar di nuyu jigéen ñi bu baax sunu waxtaanu tey dina xaw naqadee li jënti li ko waral moo di li ñu ma jox moo xaw a naqadee waxtaanee ci jamono bi te dañu toll ci jamono boo xam ne li wolof di wax ne ku aj dafay bañ kuy séentu wala kuy téel li sell te baax te yàlla tànn génn góor bu baax bu ñuy wax Cheikh Al Hadji Malick radiyallahu taala anhu léppam sell te baax te jub soo bëggee jëli nag waxi Cheikhul Hadji Malick ci ni mu mën a réformer jamono bile bu nit gàttee xelkat dana ne diw mii diw lay gaaral wala diw diw lay te fekk na suñu waxu maam rek lañ fi fekk mu bind ko kifaayatu raaxibiin nag tur wi rek dafa doy waaye li tax téere bi doy waar mooy moment bi ko maam alxaaji malik si radiallahu taala anu bind bi muy bind téere bi dafa fekk lépp lu góoru yàlla diwut si alxaaji malik ndar képp ko teg toog ci toog ci toog ci ku mel noonu nag lu jógee ci moom yàlla lay doon moo tax wax ji amul sentiment téere bi nag buñ ñu la laajee na la lu tax maam alaaji malik si radiallahu taala anu taalif kifaayatu raaxibiina loo wax lu dul lenn dangaa juum lenn rek moo tax Maodo taalif téere bi lenn da ngeen ma laaj loolu la dangaa sa responsabilité amaamal laaj ku xam dëgg ni Maodo di waxee yàgg lii téere yi gis yeneen téere yi ni mu ko daan jàngalee ak téere bii ni mu ko bindee di xam ne Cheikhul Hadji Malick radiallahu taala mu ngi wat na kat maa ngi bañ a bokk ci magum xamoon naa ko waaye maa ngi bëgg a bokk ci magum waxoon naa ko téere bi nag Maam Alaaji Malick ay fusuul la ko def bii nga xam ne ni Maodo bëgg a réformer jamono nga xam ne ñëpp xam nañ ne éducateur la woon mais réformateur la woon nan lay re nan la ñu mën a réformer jamono bi le ci mbindu Cheikhul Xaaji Malick Si jaarale ko ci kifaayatu raaxe bii nag téere bi bi ko maam Alaaji Malick Si bind daf ko def mu nekk fukki chapitre ak ñaar xilaas sax moo ko ëpp ay chapitre te xilaas jot jot mat na trente te téere bi moo ëpp xilaas ci mbind ak ci feuille waaye Maodo daf ko tënk def ko mu nekk fukki buntu ak ñaar buntu bu njëkk ba Cheikh Al Hadj Malick fa njëkk danoose wax ko fa mooy hey yéen ñii may waxal balaa maa dugg ci li may bëgg a wax damaa bëgg ngeen xam ne jamono yàqu na bu yàgg laataa ngeen di ñëw fi bayaani anna fasada zamani qabla zamanina hada bi kathirin jamono yàqu woon na lu ya laataa man alaaji Maalik sama ñëw fekkoon na lu bari yàqu kon bu bëggee wax bu bëggee wax ci jamono ba doon waxee ñu bëgg a ñëwaat ci jamono bii ñu toll nga xam ne bii moom ñemewu la présenté wu sax ci jamono Cheikhul Hadji Malick kon li tax mu njëkk a ubbee buntu boobu rek loolu yi am na lu Maam Alaaji Malick bëgg a jàngale buntu ñaareel bi mu indi ca ay ndénkaane yu am njëriñ yoo xam ne képp ku ca tegu yàqu-yàqu jamono yàlla dina la ca musal buntu ñetteel bi maam alaaji Maalik indi ca wuute gi nga xam ne ñëw na ci borom xam-xam yi ndax nit mën na di julli xale nekk ci loosam muy julli waaleeg moom julli ga wér parce que diine ci lay wax te téere bi daf ko ne mu nekk constitution bu nga xam ne diine ci yëpp buñ ci tënk woon jàmm am li ngeen di dégg libi di ko dégg euh, keer di ko dégg feneen ci ay coow ak i wax di ko dégg benn gazeeg lépp bu ñu jëloon téere bi ñu généraliser ko ñëpp tënku ci mu delloo ñu ci alquran ñu jëfandikoo alquran ñun ñëpp ne ci jàmm mu teg ci buntu ñenteel bi ne wuute ki nga xam ne am na ci nu ñuy jullee mu sew sew bu am solo xay na bu ñu ko taabi maye dinañ ci yegg kii naan julli bi wér mooy xabdu kii naan satlu moo wër julli teg nii sa loxo julli yoor sa loxo kuy kàbbaar da nga yëkkati sa loxo ba xas wa manki bayka wala ala sadrika détails yu sew yooyu nga xam ne dafay gëlëm loo nit yàlla yi maam Cheikhul Hadji Malick nee na yooyu détails yëpp dinaa ko leeral ci téere buntu juróomeel bi Cheikhul Hadji Malick indi ci sew-sew bu am solo dafa am ci boroom xam-xam yi ñu wax ne wax bismillahi rahmaani rahim ci julli farata dañ koo sib ñii ne dafa dagan ñii ne dafa xaraam maam Alaaji Malick ne détails yi ci am yëpp dinaa la ko leeralal ak sayiduna cheikh ahmad a tijaani sharif moom bu daan julli bismillahi rahmaani rahim la daan wax lu tax sayiduna cheikh daan tànn di wax bismillahi rahmaani rahim te tënku ci ngiiru ilimaan malik te ngiiru ilimaan malik donte la sax cooy ban waaye karahatun ibahatun nadbun wujubun mazhabu malikin hawaha ya habibu détail yooyu yëpp cheikh alhaaji malik neen dina ko leeral lu tax lu tax buntu juróom benneel bi maam alhaaji malik nee dinaa ci leeral coow ni am ci boroom xam-xam yi ne nit su dee ñaan dafa war a yëkkati ñaari loxoom ba ca kaw am ñu ne déedéet jarul yëkkati ba ca kaw am ñu ne boo ñaanee ba pare jël sa loxo tax ci sa gémmiñ ci sa kanam jaru ko yàlla gis na ko ñu yegg ba ne sax boo ko dee def day waral balaa ngay génn àdduna say bët day muuru ndax leeru ñaan gi ngay raay ci say bët détails yooyu yëpp Cheikhul Hadji Malick dina ci ñëw insha allah beneen bi ci des mooy buntu ñaareel maam alaaji malik mu ngi ci jàngale alxasu ala iqaai salaati fi ljamaati mbooloo jullit yi nga xam ne dañoo dugg ci diine lislaam mu leen bi ñaax pour ñuy julli ji ca mbooloo ma waxul ñuy julli ñuy jullee ji ca mbooloo ma saaj mal dina ci indi ay ahadis ak ay ayat yoo xam ne yu leer naññi la ci lan la ci salaay sallam jàngale ak lan la ci alquran wax ak lan la ci ijmaa wax ak lan la ci xiyaas wax détails yu sew yëpp mamalaa ji maal ne ne su ngeen teyee dinaa ci ñëw buntu juróom-ñeente juróom-ñetteel mamalaa ji maal mu ngi ñëw ci euh, coow yi nga xam ne dafa ñëw bay na maxraji kalimatu xarfu daad wal jiim ñiy def maxaarijul xuruuf wala boobu façon jàngi ni wuute détails yooyu yëpp si alxaaji maal ne dina ci ñëw buntu juróom-ñeenteel bi mu ngi jàngale warug jumaa ñu war koo samp fil mudni wal qura aw alal qura wal mudni ba fan lañ war a samp jumaa ak lan mooy wéral jumaa ak imaamu jumaa nu mu war a mel détails yooyu yëpp Cheikh Hadji Malick neen dinaa ko indi ci téere bi buntu fukkeel bi mu ngi jàngale wuuteeg borom xam-xam yi wax ne lu demee ni eh, ñàmbi wala lu demee ni gerte kenn waru ko génnee asaka kenn waru ko génne asaka coow yooyu ci am yëpp Sëriñ Maalik nee na dinaa la ci ubbi ba boo fi jógee bu ëllëgee su dee ngay ab baykat wala nga am wërsëg lan nga war a génnee asaka ak loo war te génnee asaka insha allahu tey boo jógee gore bu ñu ko taaj yu mayee Maodo nee na dina la ko leeralal buntu fukkeel bi ak benn moo di aadi achar mu ngi jàngale fi ixtilaafi alwaaqi bayna ahli shaami fi subuuti sawmi bi suluukil almaaruufi bi télégramme ndax nit mën na toog fële envoyé la benn télégramme ne la kat weer yi feeñ na nga tënku ca julli nga tënku ca woor wala bu weer yi feeñee nga tënku ca julli moo laa ji maal neen détail yooyu yëpp insha allah dinañ ko leeral ay dara ay dara convocation ba sëriñu sëriñ bi fadilatu cheikh dina am ku wax waaw ma ne alhamdulilah ndeke mu ngi ci yoon ñu ngi koy dalal bu baax ci ndigalu suñu kilifa suñu bàyyi sëriñ docteur Mouhamadul Bachir Ngom dalal tamit suñu sëriñ Serigne Sid Ahmed si bu suñu bàyyi Cheikh Al Hadj Abdoul Al Amin bu maam Cheikhul xalifa Ababacar si eh, Serigne bi ñëw nga ci say dongo ñëw nga ci sa njaboot ñu ngi lay dalal mu baax te di la ziara di ziara Serigne sa te di ko jaarale ci yow di nuyu suñuy bàyyi Serigne Essa Touré di liggéey ci tarixa bi ak diina ji lu bari dal na ko yàlla fay di leen wax rek ne ci seen ndigal lañ nekkee woon di nab nabi ci teewaayu Baye Bachir. ci seen waxu maam Cheikhul Hadji ci nan lañu mën a jaaree ci kifaayatu raxibiin ba réforme jamono bile ba nit ñi ku ne ku jàddoon nga delluwaat ci sa yoon kon buntu fukkeel bi ak benn moo doon ngi ci kifaayatu raxibiin borom xam-xam yi coow ci ndax nit sañ na jël doomu jàmbur di ko jàngal ñi di la fay ndax nit sañ na jiite jumaa ñu di la fay ak yu demee noonu lépp loo ne jëf du aju la ci wàllu diine nga di ko liggéey ñu di la fay dagal na wala dagal lan la ci borom xam-xam yi wax boobu mooy douzième chapitre mu ne nag wa xatamtuha bi xasidatin fii ditniha xulaasatu maa fi kitaab moom doo mën a jàng mu ne loolu yëpp nag indi naa ci benn bu gàtt boo xam ne lépp la leer ci biir téere bi boo jàngee xasida boobule dinaa la leeralal ci fi ñuy commencé suñu wax mooy yàqu-yàqu jamono ci xilaas ci ci kifaaya Maodo nee na boo demee ci téere Seydina Zarruq ci sarxam boobu ñuy tuddee ak rusuumu bil maana nee dañ fa sadd lépp bind réforme waat ko mooy diine ji ñuy kocc koccal kon diine biir amul dégg nga fi muy waxee mu ne mu ne bi katabu biha alkutuba wa lizalika qaala abu madyana laa ziltu anhum wa annee lahum bi ru'yatihim assa mu ne maa ngi du ma dëñ di leen laaj fu ñu ne du dëñ di gëstu seen jeexit waaye xam naa ne teg seen bët ca ñàkk ña ak li yàlla bëgg li muy xaar mënta leen xanaa ma yem ci seen jeexit mu ne boo demee ci sayyiduna xusayri ci risaalaam boobu mu tasawufoon yi dinañ koy liir yu bari wax nañu ne inna al muhaqiqina fi hadi zaman taifatun mu ne ñi nga xam ne ñoo tegu ci yoon te ne ci dëgg maam alaaji Malick nee borom téere boobu nee na benn kuréel la boo xam ne in in qarada aktharuhum li ëpp ci ñoom dem nañ amatul nitu dëgg biir nitu diine boo xam ne léppam yàlla la lépp yonent bi la Sëñ Maal nee na boo demee ca borom téere boobu borom téere ba nee na benn kuréel la bu fi jaaroon dem nañ walam yabqa fi zamanina haza min hazihi taifa illa ñooñu jeex nañu seen jeexital rek moo fi la waxkat ba di amal fa innaha xiya ka xiyaamihim waaye nag wa ara nisaa il gayra nisaa iha waaw mu tànt ya mag ñi daan fanaan néeg ya ma gisoon de ñii néeg yi de fa lañ waaye ñi yeewoo ci néeg yi ak ña ca doon yeewoo démb di bañ du benn luy loolu mooy alquran ji de benn la li fi yonent bi bawoon benn la ay nit a koy wax waaye ña ko doon wax démb nañ ko doon appliquer ak ñi koy wax tey du benn ña ko doon déglu nañ ko doon dégle ak ñi koy déglu tey du benn moo tax mu ne gis naa néeg yëpp néeg yañ doon fanaan gis naa ko teg naa ci sama bët waaye ña doon yeewoo ca néeg ya ak ñi ciy yeewoo tey du benn moom la moom la wax fii bon borom la borom ruuxul bayaan di wax ne waa xasarati maatat turuq uulil nuha mu ne mu ne kuy dund ci biir jamono perte nga ñu ne mu ne gaa dem nañ waqad iddahaa faajirun an faajirin mu ne li xew kay mooy ku war a toll ci jàng ku war a toll ci ñu defar la ku war a toll lijjanti sag njulit mat naa matul nga taxaw dëmm nag ne ku ma gis dem aljan ne ku ma tafli sa affaire baax ne ku ma yaakaar sa dara dootul takk te Cheikhul Hadji Malick ne kooku mu ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a dem wuti sëriñ bu ñu wéeru ji mu defal leen waaw lu day waar la nag ci jamono bii mu ne mu ne li xew xam ngeen lu xew ñu ne ah mu ne kay xarru bi suxrifi zayihim ahlal hawa gis nga xarru ahlal hawa mas gis nga ko ma mu daari ma foolum bi baaga ca kanam xarru ahlal hawa bi zayi zi zinatihim mu ne ñi nga xam ne foo leen ak caaxaan ak mbumbaay dañuy fekk sëriñ bu bari mbooloo rek ñeme yàlla rek mën a garanti rek yoonam ci téeréb yàlla bi yoonam ci lu yàlla bëgg ak lu yàlla bañ mu di leen ci garanti rek di leen garanti aljana ak maay faj seen aaju ñoom ñëpp wa tajarradu min kulli xuliqin tahir bépp jikko yonent bi bu baaxoon ak bépp jikko boo xam ne nit daan na ci tegu di jubóog yonent bi wala muy mel nu yàlla bëgg loola moom bokkatul ci programme àdduna ñoom kay li xew léegi ci biir jamono mooy ku taxaw rek samp sa dënd maay ne maay waay moo tax nag ne xayrun lahumu law law amano mu ne li gën ci ñooñu waxuma ñi leen topp waaye ñii woote na ñoom la bu ñu xamoon li xew law amano min hujjatin su maxtadaw bil aqli azamu saakini li xewoon mooy ñu dem seeti ku tegu ci yoon ñu bootu ci ginnaaw moo gën ñuy samp seen dënd boobu wóorul wóorul waaye nag yàlla nañu yàlla defal suutura mu ne kon bokk na ci li yàq jamono balaa may balaa may continuer moo di balaa bokk na ci li yàq jamono maam laa ji maa bokk na ci li yàq jamono balaa may dem ci ñiy topp ñi ñuy topp ñoo njëkkan dugg ci loo xam ne du seen seen mani mu ne nag jamono li tax mu yàqu ba kenn mënu koo defar maam laa ji maa ne da nga li wax rek ala ara alfu baanin laa yaqumu bi haadimin fa kayfa bi baanin xalfoo alfu haadini nu muy demee moo laaj mal ne ne bu njëkk da nga daan gis junni nit yuy tabax kenn du toj te du baax léegi nag kenn dong mooy taxaw di toj junni tax di tabax junni di toj fu ñu jëm mu ne bi fi mag ñi di ne di tegu ci yoon junniy tabaxkat moo fi ne benn nit di toj te mag ñi amul liñ bëgg mu ne yéen seen jamono bii ngeen di junni nag junniy tojkat moo fi ne ak benn tabaxkat ndax xalaat ngeen a am lu baax ndax day laaj ndax boobu jamono nit mën na fee xalaat lu baax mu ne mu ne mu ne ñu ne maamalaaji maa loolu lu ko waral mu ne xam ngeen lu tax jamono yàq ñu ne mu ne jaa'u bi muhdasatin laa isnaada laha ila shariati dañoo indi ay yoo xam ne ñoo ko créer seen bopp te amul benn waaye ci sharia amul benn dëgërluwaay ci alquran amul benn dëgërluwaay ci sunna ñoom ñu jël ko indil ko seen bopp waaye Maodo ne li ma bëgg ngeen xam ko waalam anna tariqa al qawmi idda'u indirasaha jaay yàlla yu biir yoon yañ teg woon raf raaf na ku yàgg kenn tegoo ticc ku bëgg ku bëgg jubóog yàlla seetal seen jeexit nga teg ci sa tànk waaye kere yi waat lu bees lu dëppoog li mag ñi amoon Maolaa ñu maal nee na mëntu la ne ci biir jamono mu ne bu ñu demee ci Seydina Abdullahi ibnu Mubarak mu ne moom li ko jaaxal ci jamono mooy ñi yàlla teral jël diine teg ko ci seen loxo dañoo xeeb li leen yàlla jox di wuti la ne ca ñooñ àdduna ya mu ne problème la ci biir jamono araa unaasan bi adna diini qad anau wala araahum radu fi l ayshi bi duuni mu ne li li yàq jamono mooy la leen yàlla jox liggéey bu day ni liggéeyu seet na Tijaani Chérif liggéey bu day ni bi fi mag ñi def ñu liggéeyal la ko nga teg ko fi xeeb ko dem seeti loo xam ne amalul la benn njëriñ mu ne fa sax ni bi diini an dunyal muluuki kama sax nal muluuk bi dunyaahum ani diini yéen a gën a xam ne Macky Sall du xëccoo président du xëccoo imam amu ci soxla du xëccoo président daayira amu ci soxla du xëccoo naaj amu ci soxla du xëccoo nodd amu ci soxla du xëccoo maay porte parole daayira amu ci soxla naxante na ba jot ci nguuram ministre naxante na ba jot ci nguuram yow mi yàlla jël loolu muy sa cër te mooy mujj moo da nee na ba ko cëram te téye sa cër waaye boo xeebee cëru àdduna sa cëru àdduna bi le sa cëru àdduna àllaaxira bi di xool boroom cëru àdduna xanaa ñun ñëpp war nañoo jàng fi mu ne ci li maam Alaaji daaw ci eh, daaw daaw ci jamono bii ñi ñuy woo di leen këlli-këllee ci ci ci brigade ku leen waxoon ne déwén nii la duñ ko gëm te ñañ bokkaloon jamono ñuy yëngu ci diine ñu dee ne ñoo leen gën ñoo leen yi ñoom la ñu yoroon ñanca muy gën di dëgër bis bu nekk suba ak ngoon guddeeg bëccëg kon xanaa bon leer na du dëgg daaw ci heure bii ñi ñuy woo la leen joxoon cër mooy maay doomu président de la moo leen jox cër bi daaw ci heure bii Sidi Ahmed mii li ko may li mu am mooy maay doomu sëñ Abdou Aziz Al Amin léegi xoolal ñaari état bi daaw ku ëppoon pouvoir ak ren ku gën a nekk ci jàmm mu ne kon fas sax ne bi diini an duniyal muluuki kamas tax nal muluuku bi duniyaa um ani diini la ñu téye ba foog ne moo leen doy ba tax ñuy cëppi cëpp mu ne am nga loo xam ne moo la doy Maodo nag ne Maodo nag ne li yàq yi jamono bokk na ci sëriñ si nga xam ne ñooy woote ne ay sëriñ piir lañ wayaamuruuna tulaaba bi taslimi dañ naan la da ngay jébbalu jox ma sa lépp boo ko deful da sa dara du baax moo tax ne yow affaire yi sa loxo la ne waritaa bi maa yu lépp lu ma def neen est-ce que sii est-ce que Mbàkke est-ce que Jóob est-ce que dara nee ne du loolu Cheikh Hadji Malick pour lii mooy dafa dagaa sa responsabilité bi danaan def chaque fin du mois chaque fin du mois àllarba bi njëkk dina woo taalibe yépp tëj leen ci benn néeg ne man Alaaji Malick de ñaar la may ñett la ma yàlla dénk ñett jàkka ji ak dërs bi ak daayira yi ma njaboot yi fi ñëw di di yaakaar yàlla ñett yi ku ci gis lu doxul danoo se ko fii ku ñuy wax rek nga ne ah dëgg yàlla man di lii doxul lii a dox lii doxul lii moo dox lii doxul lii moo dox benn waaye bu ko ma laaj ma laajoon mu ne ko man si loo wax baax moo def ko ñaar yoon wootu ko mu toog suñuy woote kenn du ko woo ñuy tëju mu ngunu bi mu ñëw ne si loo ma déggal boo daan woote boole ma ci te boo wootee doo ma ci boole ma laaj ma ne man du ma ànd ak jox xalaatam comme sama xalaat doy na la ma bañ la tàddeel nga dem tama wuutu la fi damaa bëgg li ma yàlla dégg nit kese la su ma juumee yéen ñi ma topp ngeen corrigé ma bu ñu demee ca kanam yàlla gàcce bana am waaye loo def noonu la loo def noonu la alxuraan yàlla ko corrigé na fi rasulilah te matuma yonent bi njaboot ngeen bëgg maa ak ci ci ci fasu loo wax noonu la kon ma libéré la tey déglu ñi may wax li may tegloo ci yoon loolu lay wax nii mu ne it bokk na ci détails yi jamono da dem ci kilifa yaakaar ko mu ne lan laa yaarifu xayri man rek ah maa fi doo am ak keneen affaire su ma la gisee mu ne fa yaabuduunahum min dunillahi kama huwa da'bu akthari almashayiqi fi zamanina hada mu ne waxuma sëriñ si waaye li ëpp ci sëriñ si loolu moo di seen mbir jamono bi boo leen déggalul wala boog lu ñu la wax doo ko def mu ne daal boo yow daal moom mënuñoo def ndaxte xam naa ne yow téewoo sa tànk nangam nangam da fële mu ne looloo yàq wa addis jamono bi li loolu it responsabilité sëriñ si la mu ne it am na coow lu rëy nit ñi di ko mooy musam dajàl la ñu ne day ñëw ci mujj jamono nit ñaa ngi koy xeex Sëñ Maalik Moussa Dajjal ñëw na bu yàgg ñu ne ah, mu ne wala shakka inda ahlil ilmi anna dajjal humul aimmatul mutafaddiluuna mooy ñiy wooteeg cëriñ te new mudilluuna humul aimmatul mudilluuna mooy ñiy wooteeg cëriñ te nekkuñu ci dëkk caaxaan nañ seen bopp def lu la neex jigéen nga tàmp fa lu la neex def bu ñu waxee nga ne waa garaawul sëriñ bi la moom lu ko def loolu moo Maodo nee na musam dajjal biir mooy kooku boo wut Moussa Dajjal mooy ku ñu yaakaar ci wàllu diine te mooy te lu ko neex def mu ne tamit li gën a garaaw ci jamono wa alam ana kulla man lam yafham xaqaiqa tariqa képp ku maîtriser wu lépp lépp tariqa wala salaka masalika tahqiq nan la ñuy soobee nit ba yóbbu ko ci yàlla fa huwa min yaa ngi bokk ci ñuy doog a démarré te koy doog a démarré du woote nag champion parce que dégg nga wax bi de yow mii doog a dugg ci làmb ji doog am premier combat bëree combat boobu rek ci nga doon bëreel def quatre appuis rek nga ne jox leen ma roi des arènes moo da leen diine ji looloo fi bare da ngay benn yoon mu jàll rek nga ne maay roi des arènes comme nag ñu ma mayoon ci temps bariwul ma wax la fukki yi nga xam ne ma Alaaji Malick ne na Seydina sa ruux moo ko jàngale ci téeréem bu ñuy wax sara bu muy wax xisbul bahri mu ne am taamaltu maa amat bihil balwa fi hada zamani li fuqaraa il waxti wa fuqahaihi fa huwa asharatu ashyain moo nee na li yàq jamono bi pour ñu war ci jaaraat réforme jamono bi man Alaaji Maalik maa la ko wax fukk la Maodo fukk yooyu yem na mu ne dangay ngay gis koy rey boppam ci naafi la te bu farata ñëwee mu tëdd jaaxam dëgg loola de la jaral la lu ne farata ñëwee da ngay gis koo xam ne du julli waxtu bu jumaa jotee non jumaa jot na te tusubaar gi nga bañoon a julli ci waxtu moom jumaa ji ñoo bokk wàcc waay ngay bàyyi farata di bàyyi farata di rey sa bopp ci tabaski di nga xotti ganila di nga jënd du mees di nga dàll am na yambar yoo xam ne émaay sax dinañ ko jënd góoru benn jabar yi lu ne dinañ la ko teg te lii farata doo ko def mu ne it nga gis koo xam ne li ko da dund ak moom ba dee doo ko gis benn yoon mu génne asak te foo ko gis ma nga jëlu ginaar di yëngal ca bopp ba am yàlla jox la wutal ganaar gu xonq ak juróom-ñaari bekk suukar ak ñetti mbuusu mburu soo ko saraxee di nga jot ci affaire bi nga rey sa bopp Maodo nee na li ngay saraxe pour aajo bi wërsëg bi la yàlla defal nga comptabiliser ko ren ba déwén génnee ci asaka moo gënal yàlla li ngay saraxe te doo génnee asaka mu ne boobu risque jëm doo gis benn milliards yaa ngi ci dëkk bi mosu leen a dox ba dégg fenn ñuy génne asaka sii dañu nii kërug diine la koo jox million million na ko génnee ko asaka da gis ku yor wërsëg nii shérif léegi war ci génn asaka korkoral ba yor sa sëkkile dem fekk sab sëriñ na ko bisimilah ma kii de maa ko dem maa ko ma benn waaye dafa ñëw ci maam Cheikhul Khalifa Ababacar si nuyu ko ne ko si maa ngi siyaara si si si lii de wax dëgg jamono yàq waaye maa la ko jamono métti rek waaye yéene naa la lu ëpp lii maa la ko jox maam Khalifa ne tàll la mu tàllal mu ñaan ba pare def mu ne ko am yóbbu ko fa jamono métti fii jamono métti fi comme dangaa ngaa jógee fu jamono métti man sama bàyyi liggéeyal na ma a xam sama jamono du métti ba ilaa yoomi den sama àdduna du métti jëmal fa mu méttee ta nga ba fii méttiwul te fi mos a métti la nga yóbbu sa kër sëriñ sa bopp te war a génne asafa moo ne boobu ci risque yi la ak man mu ne da ngay gis koo xam ne bu weeru koor jotee muy rey nit ñi moo fi weeri feeñ na lu waati waan wax weeri gul wax a ah, feeñ na woote nga Chérif laaj nga Pape Bachir ba xam lu kii wax sëñ Abdou nee na feeñ acca bismillah ñu woor te nee na moo dàq woor julli kaata waaye moo dàq jëw mu ne lu muy jëriñ kii dàq woor te du téye gémmiñam malaaj ma nee na bokk na ci li yàq jamono kasaratu sawm wa yutliqu lisaanahu fi araadil muslimin moo fi dàq woor weer yëpp dina ko woon waaye daal jaamu bi yàlla bu ko romb mu ne ah, xanaa du Ousmane Ndiaye arabisant yi ndaw yi dara jël lañ bëgg rek boo yokk moo boo yi sax ñii ñëpp a yem ku newul ci bu guddi bi yaa ngi ci gàtt yow ci boone bu ñu rek beneen bi ci des moo ne da ngay gis bi ci des ma tëj al iktifaau bi tawbati koo ci fekk ma nga yor kursam astaxfirullah astaxfirullah astaxfirullah mu ne ñoo fi dàq tuub waaye li dox seen diggante nit ñi moom duñ ko réglé yow jëw nga ma sàmba xas nga nit def nga nit lu ko naqari dem nga ba yëg ne li nga def du noonu nga war a dellu ginnaaw dellu ci sa borom balaa ngaa dellu ci sa borom kay dellul ci ñi nga tooñ jéggalu leen wax def astaxfirullah moo da ne astaxfirullah joo jéggaluwul àqu jàmbur yi zéro yàlla du ko dégg kasatul istigfaari wa tawbati an raddi mazalimi ahliha dolloo li li dox sa digganteeg nit koo jëwoon demal na ko jëw naa la baal ma koo def lu moom la maam Abdel Dabaax di wax ca xasidaam ba astaghfirullaha mimma jaala fi fikri min azunubi wa ma ataa bihi basari astaghfirullah mimma jaala fi fikri maam Abdou nee na waxatuma lu ma def nit waaye lu ma xalaat muy xalaat bu ñaaw sax jëm ci sëñ Basiiru Ngom te yëguma ko yàlla maa ngi koy jéggalu di ko jéggalu Basiiru Ngom balaa maa ñëw ñi di ma ko laaj mu ne kon da ngay delloo li dox sa digganteeg nit ñi ba pare balaa ngaa rey nit ñi ak laa maa fi dàqatu ak ban mu ne bokk na ci risque jamono jëf ju bari tal la ñuy def ak la ca xol yee dafa wuute ñoo fi dàq julli ñoo fi dàq wasi dàq fa daayira oh sa daay maa la dàq daayira laa ilaha illallah waxtaan bi mu Ousmane Ndiaye waxtaan ah non sama daayira bi benn la suñu wasifee tey mosu fee am waaye la ngay def sa yoon new fu ñuy wasifee yaa ngi xalaat foo jëm mu ne da dañuy jëf te jëf ji du dëppoo xol te nag wallaahu laa yaqbalu amalan bi dooni sidqi walaw walaw walaw sallaytum ci hadisul qudsi bi walaw sallaytum xataa takoonoo kal xanaaya wa sumtum xataa takoonoo kal awtaari bilaa wara in wa sadaqin maa taqabala llaahu lakum minkum hadisul qudsi yàlla ne na bu ngeen wooroon ba mel ni bant yi ci wow di julli ba mu jullum ko ba mel ni ban tey tamit dëgguwu leen ci seen diggante sàmmuwu leen seen digganteeg nit ñi duma ci nangu benn bi ci des ban la ñaara ma dese doucement temps bi jeex waaye fukk la dama koy bañ a dagg mu ne bi ci des moo di ndawi jamono dañuy gaaw a baati lasaraar hmm, man boo ñëwee ci man laa daa u alwuluu bi ulumi al asraari koo ci ma nga yorub tal sab ma nga yor benn secret ma nga gis benn xaatim dee ne ne moom mooy doxal àdduna bi te mu ne moo da neen ilmu baatin lasraar nekkul ci ay tur nekkul ci ay araf ñu ne loo mu ne waxuwa ulumu wahbin wa fathin da ngay liggéey ba am fathu dem ci àttatu ilaahi ñu def ko ci yow su isaan mu ngi may nettali léegi way juróom dafa benn waay bu am cancer bañ ne weer a ko dese mu dee weer ñeen ko ci maam Abdou maam Abdou ne Badou yët ko sëñ Souleymane mu ñëw mu ne Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick ñetti yoon waa ji génn na man xaw ma sa papa ak yow ak góor ma ci gën a yem man France laa jógee ñu ne damay dee weer nga naa ma Seydi Hadji Malick mu dem ñu dem xool ko ne ko yow da ngaa mos a feebar non yow dara jot la de ñu ñëw laaj ko mu ne Alaaji Malick moo ma de laa waxoon loolu moo di al wahbu wal fathu nekkul ci asmaa yeeg dërëb kërëb mu ne mu ne xam-xam la boo xam ne laa yatakallamu fiha ahluha koo dégg mu di ko waxantoo rek maîtriser wu ñi ci wax dëgg buñ ciy wax illaa aanati illaa iaanati liman lahul fathu ku am fatwa lañ ciy waxal wa ifaadati man lahu alxaqi xaqiqatu ku am xaqiqa ñu bëgg laa jàll nga dem ci benn martaba tag fa ñu bëgg laa yéeg ca beneen martaba wala nga bëgg fukk buntu yàlla dem ba yéeg ci buntu ba parce que damay waxtaan ak damay waxtaan ak Pape Sëñ Bay Maasu mu ne ma xam nga xadratu ilaahi nu mel ma ne ko déedéet mu ne ma xadratu ilaahi néeg la bu amul fenêtre amul bunt te ku ca duggul bokkuloo kenn mënu faa dugal sa bopp ma mu ko miin moo mën a négocier bañ dugal la fa nga taxaw ci mbedd bi naan maan na léegi maan moo doon ne ñi ñi ciy wax ak ñi mu doon du ñuul loolu bokk na ci seen seen jirisu jamono beneen bi ci des mu ne moo di talabul kamaali di tarahunaati ma tasahuli ji tëdd gént gis dara rek wala ñetti nit nelaw yow laa yaakaar rek nga ne mat nga anta mina rijaal yi te neen te kenn benn góor dañuy waxtaan mu ne ma li mag ñi daan def bañ ko bàyyee la Sénégal commencé lëj mën a ko lan mu ne ma départ midi mbaa wàcc midi ma ne ko luy loolu mun départ minuit mbaa wàcc midi ma ne ko luy loolu mu ne mag yi trois heures du matin la ñuy yeewu de ci sa kii maamam maam astukan maam astukan bu masaana yeewu maam astukan bu masaana yeewu quatre heures du matin fi mu toog yor ay axzaabam yor kurusam balaa pare bay wax ak nit midi jot awraat yi sëñ Babacar si daan def yooyu la yor moom awraatu boppam jigéen de ajaratu tànta Jóob moom moo ko yar ba muur ko mu soxna astukan ni sëñ Babacar yoroon ay awraatam noonu la ko bu jógee trois heures du matin balaa nit a a wax ak moom amul sëriñ Cheikh amul kenn midi day jot mu pare fini doog a jëm ci ñu ndékkee ak ñu ndax am na ñu ndékki wala déet loolu mooy wàcc midi wala ñu par minuit mooy lan mooy minuit ngay jël téye sa kurus buñ julee fajar nga doog a nelaw tuuti waaye yow trois heures trois heures de temps la la laa ilaha illallah ku la wax nga ne ko oh, xamoo ma Maodo nee na doo kenn biñ taraawu ñu watta saaw da da nga yaakaar ne yow la te doo kenn te ne koo kenn bi ci des ban la mooy fukkeel foofu laay tëjee mu ne wa xubbul jaahi wa xubbul jaahi wa ithaaru shahawaat mooy li ñu daal ñun xale xale yi tey mooy li ma dal rek ku ma fekk Baye Bachir wax toog may wax mooy lii mooy bëgg jamono bëgg bëgg gaaw a feeñ bëgg daraja topp sa bànneex doylu ci loolu ku ci am oto bu rafet am kër gu rafet am jongoma ju la nopp topp la ne yaay sama kaani xeeñ yaa may rey nga ne yeggal naa waaw mu ne lii mooy seen problème mu jamono bari woon na bari woon na yi nga xam ne maam Alaaji Maalik radiyallahu taala anu junj na ko ñu bëggoon a waxtaane yëpp mais daal nee na lii mooy suñu ma wax nag benn kàddu kii moo ko wax léegi ki doon wax France Ousmane ñu tëj dafa am ku ne xilaat kifaaya kifaayatu raatu bi na waaw loolu xanaa bon teema ko bàyyi bàyyi Bachir kon temps bi ñu ma jox matul gis nga Seydi Malick boo demee ci téere bi bàyyi Bachir moom moo ma gën a maîtriser téere bi day bàyyi borom xam-xam yi ñuy wax ba doyal mu ne wax xultu su ma xultu xultu mooy lan ma wax yàlla waxuloo kenn di alxuraan ba mu daj yàlla newu fi kenn waxal xam nga waxal mooy lan mooy takkallam alxuraan amul baatu takkallam xul rek moo ci am xul mooy neel xulaa onze neel nit ñi ki ne mën a kay day jottali dégg nga wax bi Maodo su demee ba borom xam-xam yi beex ba tey danaan nag wa xultu ma xultu xam nga luy loolu parce que noonu wax naa sama gis-gis danaan ci xalaatam la wax day wane ne xam-xam wax na ko ci biir téere bi nee na téere bi ñaar la boole ilmu riwaayat ak ilmu diraayat ilmu riwaaya mooy lii ñu fekk ci téere yi di ko bind ilmu diraaya da ngay jaamu yàlla ba ñu ubbi la adratu ilahiya anwaar yooyu nekk ci dënnu Cheikh El Hadj Malick bu nit yàlla yi demee ba gag loola lay andi nag na qultu moom la maam mën foti wal muskilaatu iza azat maaqiluha yaxulluha wa lisaanu lqawmi maaquudu maam xalifa ababacar ne fa cheyqi murabbi muraqi mudarrisu kullal ulumi chahid maanaam day day dem xam nga dafa bëgg wax ne Maodo dafa andi jirim wala boog dafa feeñal boppam ci téere bi loolu la wax xam nga lu tax mu wax loolu Ousmane waaw boo toogee juróom fukki at di wër soow koo dem boo xoolee lam yor du soow te yow soow ngay bañ a gis boo doxee ba yem ci ko bëri nga soow noo def da lay lu set la mos a gis gisul lu leer fu mu dem ko wax ba ci biir dugal ci sa bopp wax ba ci biir dugal sa mu ñëw fekk kuy xaañ li yàlla bëgg génnee ci boppam dagaa sa responsabilité looloo ko déranger waaye waxul dëgg wasalaamaaleykum wa rahmatulah